mbokk internet di ziar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm naka koor gi mbaa yéen a koy gérer gérer leen ko rek yàlla baax na leen mu jeex incha allah tey nag ma indi leen deuxième partie xale bu jigéen bi nga xam ne démb gis ngeen li mu dund ba mu demee ci ay mbokki papam ba xamante fàkk jëkkëru tantam bi mu présenter ko woon taawam à fin mu génn ak petit frère bi ba ëmb daal di ciy juddu nee na bi mu ëmbee nag dafa daw bi mu dawee dafa génn famille papaam ba pare génnaale famille yaayam ndax nee na gàcce googu mënu ko woon a xejoowaale ndax nag moom bi mu juddoo ba tey ay tolof-tolof ci lay nekk te it mu xam ne ëmb bi ginnaaw yàlla moom moo ko teg boppam ndax waa ji doon na invité ñoom ñaar ñuy sekk loolu mais nee na moom daal dafa mel ni liñ ko tàmmal bi mu nekkee xale da ko topp ba euh, su lumb bi yëngoo rekk faw mu dem sekk góor mu doog a am jàmm nee na bi mu dawee nag dafa dem beneen koñ boo xam ne ci ndakaaru njaay la nekk nee na mu daal di fay toog bi mu fa toogee mu wut fa liggéey bi mu fa wutee liggéey nee na nekk ci benn kër di mbindaanu nee ci noonu ëmb bi di avancé mais nee na yàlla dogal na mu nekk nit ku jekk nit ku am yaram nit ku jongoma maanaam am yaramam boobu tax na ba ëmb bi doo ko gaaw a xam nee na nekk na ak njaatigéem bi mais njaatige bi mënul xam ne moom dafa ëmb ndax ni mu amee yaram mais neena ci noonu benn xaritam xaritam boo xam ne ñoom ñaar depuis ba ñu nekkee ay xale ñoom ñaar ñoo daan ànd nee xarit bi daldi dem ci patron bi ni ko diw mii de dafa ëmb ndeysaan ma ne ko cey yàlla senegal bàyyi leen di wax problème mu jàmbur maanaam nit kese moo am droit dévoiler secret moom mi ngi liggéey fi muy liggéeyee xam na ne dafa ëmb njaatigeem xamagul dafa ëmb noppi na pour l'instant pareegul pour wax njaatigeem dafa ëmb yow loo doon xaritam doon xaritam li war mooy conseiller ko ne ko diw te nga wax sa njaatige bi dëgg nee ko dangaa ëmb moo gën mu dem ba ci biir di ko xamal boppam su bañee nga toog seetaan ko mais bu la santul nga waxal ko ko yow waroo ko ko waxal bàyyi leen di jël décision ci palaasu nit kenn ku ne sa vie yow boo demee ba nekk magum jëmm ngam majeur et vacciné am na décision yoo xam ne yaa koy jëlal sa bopp bàyyi leen di jëlal nit décision wala naan bu ko waxul man naa ko wax lu ngeen xaritoo xaritoo te malheureusement fii ci réew mi loolu dañ koy def bu ko waxul mën naa ko wax seetaan ko moo ëmb ëmbam moo dem di liggéey xam na ne dafa ëmb patron bi xamugu ko doo seetaan conseiller ko rek su bañee nga toog xool ko patron bi wax ko yow dëgg yi nga xam le nga bakkaak moom yëfam la bis bu paree pour wax ko dina ko wax mais nee na ci noonu xarit bi deful loolu xarit bi dem na wax patron bi ne ko diw dafa ëmb nee na bi mu ko waxee patron bi ndeysaan patron bi nekk nit ku baax ndax des fois di nga def ne dangay wax pour yàqal nit far nga dimbali ko patron bi nekk nit ku baax ndeysaan nee na patron bi daal koy woo daldi koy laaj ku la ëmbal nee na bi mu ko laajee ku la ëmbal nee na mu daldi wax patron bi dëgg bi daldi ni ko wax dëgg yàlla ki ma ëmbal diw la tudd expliqué ko situation yi mu dund ba egsi foofu nee na patron bi nekk ku am compréhension waxu ko dara bàyyi ko mu continuer liggéeyam ma ne ko nit noonu ngay def ñaar mën a ne suwaat nga ne ko continuer wala nga dàq ko te nag comme mi ngi ëmb te terewu ko liggéey aussi may ko sansam rek mu liggéey kooku nit ku baax la ndeysaan nee na ci noonu mu continuer liggéey bi nee na ba mu yàgg rek mu dégg ne copain bi mu ngi koy wër biir ndakaaru njaay nee na fu nekk sama copain bi dugg fa di ma wër ba nit ñi di ma ko wax ndeysaan nee na mu may wër di ma wër ba benn bis yàlla daal di dogal mu jot ma téléphone ndeysaan ma ne ko cëy yàlla nee bi ma jotee téléphone mu woo ma ni ma diw lan ngay daw yow looy daw man maa la ëmbal reconnaître na maa la ëmbal man dama laa bëgg rekk te yàlla tax kon looy daw looy daw ndeysaan nee na mu ne ko lu tax ma daw li nga yor jabar la moo tax ma daw ak en plus may ëmb di teg gàcce la ci man looloo tax ma daldi daw nee na waa ji daldi koy yónnee xaalis ndeysaan kooku bëgg na nee na bi ko waa ji yónnee xaalis ne ko bul daw ñibbisil man dama la bëgg ngir yàlla te soo amee doom dama lay takk kon bul daw man maa la ëmbal xam naa ne maa la ëmbal ndeysaan ci yàlla jafe na ci mim réew de parfois da gis góor gu ëmbal ba pare lànk bañ cey nit dangay assumer say responsabilité ndeysaan ne ne bi ko waaji delloo si ne ko soo amee doom dinaa la takk nee na mu daldi dellu si bi mu dellusee yàlla def mu nekk ak ëmb bi nekk ak ëmb bi ba am doom ndeysaan nee na bi mu amee doom mu daldi am ay seex ay seex la am ci yàlla bi mu amee ay seex nee na xanaa dafa am doom ba bis bi delsi rekk nee na waa ji daldi koy takk waa ji def la mu waxoon ndeysaan waa ji de li ma la mën a waxal nit ku baax la ni la ko sa jëkkëru sër bi convaincre woon ni la nit ku baax la nit ku baax la cat nag des fois day yàq lu bari ci dundu doomu aadama ndeysaan nee na waa ji takk ko mais nee na bi ko waa ji takkee rek maanaam xanaa dañoo fas sëy bi rekk nee na waa ji daal soppeeku ma ne ko cëy yàlla chetëtëtët nee na waa ji soppeeku soppeeku goo xam ni am na commencement waaye amul fin ma ne ko soxna ci waaji ji ku baax la de cey soppeeku ndeysaan nee na waa ji soppeeku nee na waa ji gis ko ak gis ay butitam la yemale bi mu takkee ba pare ma ne ko waa ji en tout cas ku baax la te nee na ci kaw li mu ko li mu soppeeku gis ko ak gis butitam la yemale nee na waa ji gëmewul seexi ndeysaan dafa jël seexi takk leen ci bakkanam téye leen ma ne ko kon waa ji ku baax la léegi nag soppeeku bi lu ko waral yàlla rekk moo xam ndeysaan doo accuser parce que xamoo lu waral soppeeku bi nee na waa ji gis butitam ak gis gis ko ak gis butitam la yemale nee na affaire bi jaaxal ko nag nee ci noonu muy dem di kalaame waa ji nee na fu mu dem kalaame waa ji rek nee ñooñu ni ko ah yow diw li ngay wax diw ñun xamee xamee wuñ ko jikko boobu de diw dey ku baax la ñun dey wax dëgg yàlla wax yi ngay wax ne la lay def ñun xamee ko diw ndax diw ku baax la te nag olof njaay nee na lu ñépp wax ay dëgg su ay mbokkam ne ku baax la sa jëkkëru sër convaincre la ne la ku baax la ba nga dugg ci nga ëmb mu wër la fu nekk ci àddina te boobu yoroon na jabar man de sama gis-gis su bonoon du la wër bu la gisee du la convaincre nga ñibbisi pour boo amee doom mu takk la mu takk la xëy na soppeeku am yàlla baax na mais daal ba léegi geste bi mu def rekk mënoo ko accuser nit ku bon parce que bu nekkoon ku bon ba nga tawee lay tourner la page def ko namm ca yebu ca ku la ca bu max nga jël boo ëllëgee soo waxee mu ne la yaa dawoon boo toogoon ma takk la mais le fait ko mu wër la partout ci ndakaaru njaay ça signifie que ne jëloon na ay engagement am ci yow ndeysaan ñu ne bu ko ñooñu ne ñun xamee ko loolu ah diw de wax dëgg yàlla ku baax la nee na mu jóg seeti ay maaman lu waral diw mi won ko ginnaaw après takk bi neena fu mu dem ñu ne ko def def la ndeysaan mu ne ko ah yàlla baax na mais daal moom am na yoo xam ne même soo buggut a bàkkaar it sa xel mi dina jiixi jaaxa ndeysaan nee na fu mu dem ñu ne ko def def la nee na mu sonn à fin mu ne ah comme def-def la aussi yàlla baax na ndeysaan yàlla baax na nee na mu dal di toog jàpp ci yàlla dénk lépp yàlla suñu boroom comme def-def la aussi munu si dara nee na si noonu mu jël ay doomam daal di téye nee bi mu téyee ay doomam ndax doom yaa ngi nekk ay liir yu tooy xepp ndax après takk bi rekk la ko waaji du mooyu nee na mujj gi muy dem di yelwaan mu ne ko cëy yàlla cëy xanaa seexi sax de boo bootee seex ne yaayu seex a ngi yelwaan nit ñi parfois nañ comprendre que ne seex yee tax nga yelwaan ndeysaan ñu muy yelwaan pour dundal ay doomam ndax booba il faut ko mu lekk mun a nàmpal seex ndax ay seex la yoroon ndeysaan nee mu dëkkee noonu dëkkee noonu ba mu yàgg mu daldi bàyyi ndeysaan nena mu toog xalaat daldi di réfléchir nee na ay waay man gor ndeysaan gor dey mënul yelwaan ndeysaan mu ne ko cëy yàlla yàlla baax na cëy nee na mu ne moom mënul yelwaan faaw mu arrêté yelwaan gi nee bi mu arrêté yelwaan gi après mu dem kër yaayu waa ji bi mu demee kër yaayu waa ji nee na mu ne yaayu waa ji ana diw nee na yaayu waa ji won ko waa ji mu fekk ko fa ni ko téyel say doom ndeysaan nee na mu ne ko téyel say doom ndax man lii ma bëgg a def mënuma ko téye xale yi di leen boot di yelwaani duma am lu ma lekk yow daal téyel xale yi ndeysaan mu ne ko cëy yàlla nee na ci noonu moog waa ji ñu dugg ci néeg bi ndeysaan nee bi ñu duggee ci néeg bi nee na ñu commencé di waxtaan moog waa ji ndeysaan mu ne ko cëy nee bi ñuy waxtaan rek nee na nga xam ni waxtaanu ñaar ñu bëggante la ndax nee bi mu duggee waa ji ci néeg bi dafa jël seex yi daldi leen di tëral ci kaw lal bi nee na moog waa ji ñu face to face di waxtaan nee mu ne waa ji xoolal li muy dund ndax maag xale yi dama sonn sama taaw bi mi ngi ci papaam papaam jël na ko ndeysaan sama deuxième doom sama rakk bu jigéen laa ko jox mu yor ko nee mu ne ko sama njaboot tas nañu man sonn naa te sama yaay yarewuma lii comme nag sama taaw papaam jël na ko sama deuxième doom dama ko jox sama rakk bu jigéen mu yaral ma ko léegi ma ànd ak seex fu nekk may wër di yelwaan te nangu woo maa geesu léegi téyel say doom ndax man sonn naa mënuma geere xale yi ndeysaan ci yàlla neena waaji mer mer ci lim ko wax ndax nee na boobu ñoom ñaar ñu ngi face to face tey ñu fas yéene kenn ku ne génne li nekk ci yow woo jëmale ko sa moroom pour nag ñu waxtaan nee bi mu waxee waa ji limal ko lim fi lim yépp xamal ko ne doomi tasaaroo nañu moom sonn na ci yelwaan bi kon waa ji na oblige téye ay liiram moom mënu leen a téye nee na waa ji mer foofu daan ni ko benn du ma téye xale yi ndax ay liir lañu mënuma leen a téye mënuma ko ñaar nee na mook waa ji ci lañu eklaate commencé di xuloo xuloo bu méttee méttee métti ndeysaan ma ne ko cey nee bi ñuy xuloo nee après bi mu tëralee xale yi ci kaw lal bi sànni leen foofu nee na waa ji ni ko yow li ma dal yaama ko teg moo tax ma won la ginnaaw ndeysaan nee na mu ne ko yow yaa ma jox loo xam ni fu ma ba ma ko lekkee ba tey sama biir bi day metti nee na waa ji wax ko loolu nee na waa ji ni ko yaa ma jox loo xam ni ba ma ko lekkee ba tey ci laa jële métitu biir boo xam ne ba léegi mënul wér maa ngi nii métitu biir bi di ma daaneel bu suba mu daanelaat ma nee na waa ji jiiñ ko loolu ndeysaan nee na bi ko waa ji jiiñee loolu nee na mu ne waa ji man defuma la loolu ndeysaan foofu nag mbokk internet di xale bu jigéen bi jooy na jooy yu méttee métti ci vocal bi en tout cas man dey nduru na ma ku deful loolu ndax lii mu jooy ci vocal yi ma doon envoyé nee na ma ne ko defuma ko foofu la ni yëkkat di jooy ndeysaan nee mu waatal waa ji ni ko man joxuma la lu metti sa biir man xam naa ne du man ndeysaan nee na waa ji ni ko yaama ko jox yow la yaama ko jox tey yaama ko jox ëllëg ndeysaan foofu mu jooyaat ci vocal bi ndeysaan mu ni ma joxuma ko ko billaay joxuma ko ko mais nag yàlla baax na xëy na yàlla dina ñëw bis mu leeral affaire yi ndeysaan ñu ne bi mu nee joxuma ko ko nee na ni ko yaa ma ko jox te nit mënul dindi ne yaa ma ko jox kon nag comme yaa ma jox loo xam ne ba ma ko lekkee ba tey sama biir bi day metti dama lay fase ndeysaan nee na mu ne waa ji ah, kon baax na fase ma yàlla baax na soo ma fasee ma dem xaar yàlla ndeysaan ma ko cey metti na de mais comme nag moom it gis na ne yow yaa ko ko jox yàlla baax na nee na nag moom xam na ne joxu ko waa ji waa ji fase na ko ndax loolu mais baal na waa ji lépp ndax waa ji jiiñ na ko ne moom moo ko jox lu metti biiram nee na bi mu demee waa ji fase ko mu dem nena na mais fexe na ba bàyyi fa seex yi nee na parfois mu woo waa ji waa ji paas ko doomi nee na parfois mu woo waa ji bañ ndeysaan waa ji ni ko duma la jox xale yi duma la leen paas ndax dama ne la bu leen fi bàyyi nga bañ nga jox ma leen te ay liir lañu te man mënuma téye xale yi nee na parfois daal waa ji paas ko xale yi parfois waa ji bañ ndeysaan nee na ci noonu waa ji woo ko ne ko benn jumeau bi dafa feebar ndeysaan mais nee na biñ ko nee jumeau bi dafa feebar moom kër ay doom bu baayam la nekkoon bi ko waa ji fase nee na ñooñu tamit di ko def lu metti di ko maltraité mu nekk fa nekkin bu metti donte nee nañ ko jumeau bi feebar na nee na nag mu bëgg ko jëli mais situation bi mu nekk moo critique neena na bi mu ko nee jumeau bi dafa feebar nee na affaire bi metti ko ndax donte won na leen ginnaaw mais gënalu ko woon ndeysaan nee na nag ci noonu mu dem uti liggéey encore di liggéeyaat mbindaan mais nee na su demee liggéeyi ba ngoon mu ñibbisi fanaan si kër doombu baayam yi nee su ñëwee dafay fekk ñu koy def lu méttee méttee métti mais nee na day toog muñ ndax mu mën a am fu mu fanaan bu xëyee la lande mi mu dem liggéeyiwaat nee na mu dëkkee noonu dëkkee noonu nee ñu koy woo naan ko jumeau bi dafa feebar nee na mu dem gis njaatige bi wax ko situation bi ne ko sama benn seex bi dafa feebar est-ce que mun naa kaa indaale di ànd ak moom di liggéey si nee na ah, njaatige bi nekk nit ku baax a baax a baax daal di accepter muy indaale doom ji feebar di ko téye di liggéey nee na mu dëkkee noonu dëkkee noonu ba mu yàgg nee na à aussi mu dal di bàyyi liggéey boobu ndax boobu doom jaa ngi gën a feebar muy liggéey ndeysaan nee bi mu bàyyee liggéey bi gàddu doom bu feebar bi nee na benn doom bu baayam bu jigéen ni ko man xam naa ne danga bëgg liggéey te xam naa ne aussi ku mën togg nga comme bëgg nga liggéey mën nga togg mais sa doom ji xëy na moo la empêché léegi dangay ñëw ma ubbil la resto yow ak sama doom bu jigéen bi ngeen nekk ci resto bi di liggéey ndeysaan neena na soxna faatu foofu tamit jooy na ndeysaan nee na ñu ubbi resto bi maag doomam ñuy liggéey ci resto bi nee na mut naa waat ne client bu fa gaare otoom wàcc dugg ci resto bi lekk man maa tax ndax nee na client yi ci boppam ñoo ko koy avouer nee na parfois client day ñëw gaare dugg lekk su lekkee ba pare fay daal ne ko soxna si yow yaa tax ma lekk ndax rafet nga bëri nga jàmm dangay kaf dangay ree looloo tax ma dal di wàcc lekk nee na doom baay bi ko ubbil resto bi ak doomam xëy na wax yooyu ñu koy wax doom baay bi mel ni ku ci amee jalousie ndax nee na doom baay bi xëy na ni ma nit ñi di defee ay avance te duñ ko defee doomam ay avance ndax nag tagguma sama bopp mais bu dee jongoma duma moroomu doomam bi nee na nag xam naa jalousie daal di juddu nee na doom baayam bi mel ni ku ci mer mu ne dema dema dem soxna faatu ba fiftin duñ ma ko fay bu weer deewee man ne ci yàlla man nit ñi ñoo ñeme ak yow ngay liggéey nit ci sa resto weer nga dëxiñ naan doo ko fay yi gis nga billaaxi moo tax àddina bu leen jugé kenn nit day nekk ci ay jafe-jafe ay doombu aadama profitoo ci jafe-jafe yi mu ne pour di ko exploiter yow gis nga ne mi ngi am ay jafe-jafe di liggéey jàmburu yàlla sax nangu doomam ñëw toog foofu pour mu liggéey mu dem a dem ba santé doom ji mayatul mu toog kër jàmbur mu génn nga capturer ko pour profitoo ci situation di ko liggéeyloo di ko bañ a fay ba pare di jalouse ci lu ñàkk fayda bu ñu avancé kii avance ñu say doom sa doom sa doom it bis dina ñëw ni am ku ko gis daal di koy def ay avance ay waay Sénégal kan lañuy am esprit de dépassement moom lu mu rafet rafet benn jëkkër la mën a am su amee sa doom tamit benn jëkkër la mën a am kon mënul am jëkkër ba xañ sa doom mu am jëkkër kon loolu lan moo ci jar jalousie ba nga yàqal ko nangootoo ko fay ba mu yàgg nga fexe fexe ba yàq liggéey boobu juste parce que danga jalouse moo tax gis nga des fois nit nekk ci ay jafe-jafe bu amoon kenn ku ko awu tuuti rek yenn situation yu metti du ko dund mais malheureusement day am ñu profitoo ci situation yi di ko gën a yokk ay coono di ko gën a yokk ay coono mais nag yàlla baax na soxna si muñal ndeysaan nee na bu weer deewee duñ ko fay nee na affaire yi metti à ñu dem a dem ba di ko mel ni ku koy bunduxataal ci resto bi moo yow sa resto mi ngi dox ndax moom doo sant yàlla mais déedéet jalousie ay waaye fu ñu jëm ak jalousie nee na ci noonu benn promoteur daa di koy gis ci benn dëkk fii ci Sénégal nee na daa koy bëgg bëgg koo takk mbokk internet yi kii liñ ko xañ moo bari resto bi amaana bu fa continuer woon bu doomu baay bi jalousul woon ba yàqal ko réseau bi mun na dem sax ba am ci propre réseau boppam wala sax benn waaye ñoo gis ko fa takku ko yóbbu ko mais jalousie yi tax na ñu yàqal ko réseau bi ndax nangootuñ koo fay ñu bugg koo def rek kuy liggéey te du fayeeku pour lan loo bokk ak nit bokk ak nit liggéey liggéey la bu la liggéeylee ba weer dee fay ko nee promoteur bi gis ko bëgg ko bi ko promoteur bi gisee bëgg ko bugg koo takk nee na encore benn freeram dal di bañ est-ce que ne ko kii du la takk ndax bokkuñu xeet ci yàlla lan mooy bokkuñu xeet yow sa sœur mi ngi ci ay difficulté bu bu yàlla di ko nattu muy ëmb di teg nga gis kilifa gu ko bëgg a takk doo ko bàyyi mu dem sëy ak kooku au moins mu am fu mu suturlu ndax yow boo ko xañee sëy biit it yow àdduna du yàgg ba nga soutenir ko bu xiifee doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan nee na ñu sonal ko ci waajooju sonal ko te nee na soxna Faatu waajooju mi ngi ma doon jàppale te nee na ma waaji ku baax la de ndeysaan nee na ma xam nga lu tax ndax man nee naa la liñ ma tàmmal ba ma nekkee xale day yëngatu ci man saa su ne nee bi ma nekkee waa ji parfois affaire bi da doon yëngu mu bëgg a songu waa ji mais nee na saa yu ma ko bëggee def nee na waa ji daf may toog ma toog nee na waa ji ne ma soxna si bul def lii man dama laa bëgg te dama laa bëgg a takk yow nit ku baax nga ku baax du fowee boppam dégg nga yaa ngi may def ay avance mais duma ko nangu toogal rek man su ma seen waa kër buñ ma la mayee ma takk la te dinaa la yor man xam naa ne nit ku baax nga ndeysaan kon kooku amoon na yéene jàppale ndaw si takku ko mun koo sauver sax ci situation yi mu nekk nee na frère bi bañ naan ko bokkuñu xeet bokkuñu xeet ndeysaan yow kooku lan nga ko gëne yow mi xañ sa sœur mu am jëkkër te yaa ngi ni di ko seetaan muy toltolaan kooku ngay xeet xeetam de waat naa ko ci yàlla du sa moroom ndeysaan nee na ñu bañ waa ji wax ba sonn ñu bañ nee na à fin waa ji dem ndeysaan ma ne ko soxna si boo xamoon dangay dem wuti beneen kilifa mu may la waa ndax nag sëy nga ba tas mun ngaa wut ku la maye parce que ñii sa àddina lañu ñu bëgg a yàq ñu ne bi ñu bañee waa ji dem takki keneen nee na ma soxna faatu nii nee na foofu tamit mu yëkkati ay jooy ndeysaan billaay wallaay mu daldi jooy ne ma waa ji noonu la ma bàyyee dem takki keneen ci yàlla bi waa ji takkee keneen léegi xañ ngeen ko ki mu bëgg mayewu leen ko moom it xëy na amul yeewute wuti ku ko maye ndax mu mën a génn situation bi yéen a ngi koy liggéeyloo du ngeen ko fay mu gis ku kilifa ba ko takk ngeen xañ ko ko ndax ay affaire de xeet léegi après mbokk internet di laaj leen ma bi ko waa ji bàyyee dem takki keneen nan la ko sër bi def ak frère boobu ne duñ ko maye ci yàlla ñu génne ko kër gi ca xaj dàq ko noo ñii nag soxor nañu de ndeysaan ndaw si daa xamul mais bu xamoon ba dem ci kilifa diine yi ñu ay oustaz wala ñoo xam ne ay defal yàlla rek lañu xam nga expliquer leen sa situation dinañ woo waa ji may la ko nga toog nga am foo suturloo mais ñu lànk ba waa ji xaddi dem takki keneen luñ ci teg dàq la ca xaj génne la ndax ay affaire de xeet yéen ngeen ne kooku xeetam bëggu leen ko ah yéen de kon seen xeet war ngeen koo seetaat ci yàlla bi bi ko waa ji takk jee keneen ñu génne ko dàq ko ca biti nee na mu sonn bi mu sonnee à fin mu dem luwe benn néeg mais nee na fa mu dem di luwe ñooñu xam nañ ko bu baax a baax dafa dem luwe rek nee na ñu jox ko néeg ndeysaan daal di koy luwe xam nga mën yërmande am na ci ndax situation yu ngay dund ku la nangoo luwe néeg rek mun na dute ne kii est-ce que dina ma fay wala du ma fay mais nee na ñooñu ñu ko xam lañu mu ñëw ne dafa bëgg néeg ñooñu jox ko néeg mu daal ci dëgg noo man lii metti na ma de ngeen xañ ko jëkkër ndax ay affaire xeet ba pare ngeen génne ko muy wër di luwe ah man de man nag man nag man nag man Sénégal réew mi ñuy ñuy bàkku ay jullit lañu man dey man dey man war nañ koo xoolaat de nan la nit mën a amee gi wow xol ci doomu aadama kilifa bu ko takk nga xañ ko ko ba pare génne ko muy wër di luwe doo ko bàyyi comme yow danga koy génne ba da koy génne bàyyi ko bu yeboo mu sëy ak xeet bu ko neex loolu kay sa yoon nekku ci mu dem di luye nee na mu nekkaat fa situation yi di mettiwaat ndax dafa luwe te te sax mënu ko nee na muy jaayantu tey mu dëgër tey mu neex ak njaboot gi ndax nee na boobu seex ñibbisi nañu ndax nee na bi mu luwee bi mu génnee kër sër bi dem luwe ji nee na ci diggante bi mbokk internet yi ci la déggee ne papay seex yi gaañu na ndeysaan nee na même maamu seex yi mooy maam jigéen ba mu aussi gaañu na ndeysaan ma ne a ah, cey waa ji de kon biir buy metti bi mujjeewu ko bàyyi da ko topp topp ndeysaan ba yóbbu ko mais nag yàlla na ko yàlla yërëm ndeysaan cey yàlla nee bi papay seex gaañoo ñuy indilaat ko seex yépp mu téye leen ndaxte kenn ki rek la yoroon mu jël beneen seex bi nekk moom ak yeneen ñaari doom yu jigéen yi mu amaatoon kenn ki ci sëyam kenn ki ñu ëmbalaat ko ko nee na ak seex yi mu amoon te sëyam ba nga xam ne dañ koo takk rek waa ji woon ko ginnaaw waa ji gaañu ñu indil ko beneen seex bi mu téye leen kon luwe na ak ñeenti doom ndaw si sonn na de ñaari seex ak ñaari yeneen jigéen ndeysaan mu luweeg ñoom imagineel bu xëyee di jaay mi ngi daw lu mu fayee location lu mu dundee nee na situation yi di metti di metti di metti ndeysaan ma ne ko ci yàlla ñene hmm. ci noonu mu daal di ëmbaat hmm. metti na de dëgg yàlla moom am na histoire yoo xam ne bu ma koy nettali affaire bi man daf may metti billaahi nee bi mu ëmbaatee mu daal di amaat doom ndeysaan nee na bi mu amee doom waa ji ne ko duma la takk ndax nag bañu ma la mais dama am jabar te sama doole jotul sama ginnaaw léegi daal reconnaître naa doom ji mais duma la takk waaye nag lépp lu ma am dinaa la jàppale pour nga mën a am loo dundee yow ak sa njaboot sëñ bi boobu nga waroon a ba doomu jàmbur nag ndeysaan mais gars yi luñ la dimbali li olof yi naan góor ñi rokki mi rokki mi ngi ci situation yaa ngi koy dimbali ba ëmbal ko ba nga xamee ne doo ko takk loo ko doon ëmbale ah nee na kooku it daal di dem nee na mu ne kooku doom a takk nag garaawul bàyyil ma jàpp ci yàlla boot sama doom nampal mais nag dangay dem ma dem affaire bi amul ay danga may dimbali de maanaam su kon soo bàyyi woon mu continuer di la dimbali dina la ëmbalaat te du la mës a takk foofu moom wax dégg fa yàlla nga am fu fulla gu mot sëkk ne ko kon demal ma dem waa ji dem mu dem ndeysaan mu ne ko cëy yàlla nee na après muy jaayaat di jaay ndeysaan nee bi muy jaayaat benn sëriñ sëriñ non ndaw si daj na de mbokk ndaw si daj na de benn sëriñ ñëw luwe ci kër gi mu luwe neena sëriñ bi di defalaate ay ñaan nee na waa koñ bi yépp jox sëriñ bi bopp bi ñu joxee sëriñ bi bopp nee na mu ne comme moom mi ngi jaay mi ngi dundal juróomi bant na dem sëriñ bi may ko bayre njaay ndax mu ngi gis ñépp di ñëw ci sëriñ bi kon sëriñ bi yàlla may na ko baatin nee na comme sëriñ bi ñoo bokk fi ñu luwe nee na mu dem ne sëriñ bi dama bëggoon nga may ma bayre njaay may jaay ndax sama jaay bi avancé ma mën a am lu ma dundalee sama njaboot ma ne ko ci cey mbokk internaute yi laaj leen ma lu sëriñ bi def hmm. ay man sëriñ bi defal ko bayre boo xamante ne bayre boppam la def maanaam sëriñ bi jox na ko benn biteel mu sangoo ne na bi mu sangoowee biteel bi sëriñ bi ne ko lii bis boo ko defee boo génnee loo yor dina jeex nee na soxna faatu naka laa ko sangoo talatuma njaay mi de ma ne ko déedéet kay xanaa mu ne ma man daal bayre bi sëriñ bi daal bu ma nee kar téléphone ma wacc lépp lu ma doon def daw ji sëriñ bi tët tët tët tët ma ne ko xee seet ma dëkkee noonu sëriñ bi di ma gën a renforcer su nee ma kar ne ma ñëwal jël si ñaan ma daw jëli ñaan mbokku internet yi bu demee jëli ñaan laaj leen ma lan mooy ñaani subhanallah dama woor foofu laay yem mu dem sëriñ bi ñaanal ko mu génn dem amaana sax journée boobu dootul eggaleeti njaayam mi ndeysaan mu ko yàlla baax na borom bët bu rëy bi mi ngi gis lépp wallaahi billaay sàcc bu dul raw jarte yàkki nelaw bukki wiiri wiiri jaari ndaare yàlla na yeex waaye bis kenn ku ci dina am heure boo jàkkaarloo moom di gaa yi naan kenn xamul subateel la kenn xamul fajar la kenn xamul diggu bëccëg la kenn xamul timis la kenn xamul waaye billaahi mi ngi gis lépp nee na bu ko sëriñ bi fekkoon ca taliba sax muy jaay bu ne ko kar mu wacc njaay ma te bayra njaay la ko doon wutloo mu wuyu ji ko su demee wuy ji sëriñ bi ñaanal ko mu wàcc nee na jour boobu njaay mi sax du egg foofu tamit mu jooy ndeysaan ay waaye àddina bi moo metti kon daal nit ki bu nekkee ci problème kenn ku ne day profitoo noo rendee daal di jiit jàll ndeysaan nee bi ko sëriñ bi di ñaanal di ko ñaanal à fin mu daal ëmb mu ne ko ah moom kay noon rek lay mujje ndeysaan nee na mu ëmb mu xam ne nag sëriñ bi la ndax sëriñ bi moo koy woo muy bàyyi lim doon def di wuy ji sëriñ bi bi mu ëmbee mu ne sëriñ bi dama ëmb nee na sëriñ bi ne ko ëmbaluma la yow soo fi musaana ñëw dama lay ñaanal ñaanal nag nit mënu see ëmbal kenn mu ne sëriñ bi a ah, ëmbaloo ma sëriñ bi ne ko waa nee mu ne ko baax na bàyyi naa la ak yàlla ndeysaan mu ne ko bàyyi nga kooku jara bàyyeel yàlla baax na kooku de su ko gisul ren ba déwén kon danka kaa jiiñ waaye du moom ndeysaan nee na bi sëriñ bi bañee nag mu am doom daa di nàmpalaat doom jooju après nag nee na cette fois ci mu ne comme moom yàlla lii rek la ko nattoo xaaral mu dem def palaani ndeysaan mu daldi palaani ci yàlla mu ci cey nee na après bi mu defee palaani nee na ma soxna faatu sëy naa fi ñaari yoon nag après bi ma sëriñ bi defee loolu am naa fi ñaari yoon jëkkër ndeysaan mais nee na ñaari sëy yépp a metti boobu moom duggul ci détail yi première sëy bi mais nee na deuxième sëy bi mu daj ci li mburu di daj ci taal nee na waa ji da koo takk pour rek souffrir léew ko nee na moom noonu la ko mën a analyser mooy deuxième say bi ginnaaw bi ko sëriñ bi defee loolu ba mu palaa nekk am na fi ñaari yoon jëkkër mais nee na deuxième sëy bi moom waa ji moom da koo takk uniquement pour souffrir loo ko moom noonu la ko mën a analyser ndax nee na waa ji ñaareel la ko defoon ndeysaan nee na bi defee ñaareel mu dem sëyi fa nee na waa ji am aawo nee na ba pare waa ji lu ko aawo bi wax loolu lay gëm ma ne ko moo yow kuy sëlam sa wujju ndax dina set yow nan la sa nit ki ñëwee nga nekk see njëkkër benn jabar ji di la booleeg moom nga koy gëm nga xam nga ne kii bu sañoon kii daf fiy jóge nee na waa ko aawo bi wax loolu lay gëm nee na waa ji di ko métital moom daal dafa mel ni waa ji dafa bëggoon a xam lu mu woddoo waa ji xam ko rek commencé di ko métital nee na ba pare waa ji di sukkandiku ci waxi aawo bi su ko aawo bi ne kii def na lii nee na waa ji ko di ko mettital ndeysaan nee mu sonn ci daldi ñaan baat daldi tas ndeysaan nga ne ko massa yàlla baax na bi mu sonnee ci loolu nee na mu daldi di toogaat daal dem dellu kër ga mu luwe woon néeg ba mu luwe woon mu fekk kenn jëlu ko nee na mu luwewaat ko daldi fay dëkk ndeysaan ma ne ko cey nee ba mu fa dëkkee boroom kër gi daldi koy takk maanaam bi mu sëyijee ñaari yoon ba tas ba delsiwaat fekkaat fa néeg ba mu luwe woon nee na boroom kër gi daldi koy yërëm xam naa gis ne kii ku bëgg sëy la mais da dul dajeek ñu ko yërëm nee na boroom kër gi daldi koy takk nag mooy ki ko luwe kër gi ci boppam paa bi ko nee bi ko paa bi takkee daldi koy bàyyi ci néeg bi mu luwe ndeysaan ma ne ko au moins location daal di lay wàññeeku mais nee na soxna Faatu néeg ba ma luwee ba ma paa bi takkee ba tey ci néeg boobu laa nekk de changé wu ma néeg ci néeg boobu rek laa ne nee na man ak samay doom ndeysaan ñun ñépp ñoo nekk ci néeg bi mooy doom yi ma jot a amaat ci ginnaaw gi xam ngeen bi mu ñibbisee indaale na ñeenti doom seex yi ak ñeneen ñaar ñu ëmbalaat ko fi sëriñ bi ëmbalaat ko nee doom yooyu yépp ci néeg boobu lañu nekk néeg bi nga xamante ne boroom kër gi mujjee na koo takk mais ci néeg bi rek la leen bàyyi moom doomi ndeysaan ma ne ko mun na am moom it da cee bëgg a jaamu yàlla rek ndeysaan nee na paa bi nag lijjantiwul la res moom daal comme takk na ko ba ko ci kër gi fayatul location nee na paa bi moom defe na ne tuutee ok lijjantiwul lu mu am ak lu mu amul paa bi daal noonu la bàyyee mbir mi ndeysaan ma ne ko cey lijjantiwul leneen ndeysaan nee na moom dafa bëgg xam lan moo ko topp lan ndax nee na toujours rek ay jafe-jafe lay am toujours nee na fu mu dem rek ay problème lay am nee na ndax moom li mu dund ba mu nekkee xale loolu moo ko topp ba suñu jooni yàlla tey ba fu mu dem rek toujours day metti ci moom neena ma soxna Faatu damay julli di ñaan yàlla musal sama doomi jigéen yi ci lii ma dal nii nga xam ne fu ma dem rekk lu metti laa fay am ndeysaan ma ne ko yàlla baax na cey nee na li ko dal da ko traumatisé nee na ndax sa guddi day ubbi tànk doom yu jigéen yi cey yàlla nee na su ubbee tànk doomu jigéen yi pour xool ndax bi mu jaayi jee defuñu doomu jigéen yi liñ ko def ba mu nekkee xale ndeysaan ma ne ko yàlla baax na gën a ci moom rek gën a la ci xale yi kom yow amoon nañu tuuti càggante ci yow ba lii lépp dal sa xale yu jigéen yi moom vigilant wal ci ñoom yàlla baax na yàlla nag mooy sàmm yàlla na leen sàmm ndeysaan nee soxna Faatu ñaata alxayri laa dég ñaata te musuma ce am bànneex ndeysaan nee na ñaata góor laa amal doom ñu may wor soxna faatu kenn xamu ko nee góor gu ma yaakaar nga wor ma góor gu ma yaakaar nga toroxal ma nee na man ba ma nekkee xale la ma góor commencé toroxal ñu may tëddee ma nekk xale loolu topp ma ba góor guma ko sékkal danga may toroxal ma ne ko bàyyi leen ak yàlla ndeysaan nee na nag li ko gën a jaaxal ba jaaxal ko mbokku internautes yi ndeysaan nee na paa bi ko takk tamit mooy paa bi nga xam ne moo ko luwe fin takku ko nee na paa bi mënalu ko dara nee na du sentir paa bi nee na paa bi day def effort yu ne su ayee ci moom du sentir paa bi nee na moom ñetteel la paa bi amoon na ñaari jabar avant mu koy takk paa bi takku ko ñetteel nekk ak moom des années takk ñeenteel ça veut dire que paa ñeenti jabar la am mais moom xale bu jigéen bi mooy troisième femme nee na li ko jaaxal nag ba jaaxal ko mooy paa bi su ayee ci moom paa bi day def effort yu ne mais en vain nee na loolu topp ko ba dafa dem wuti far nee na far bi mu wut xamul ne am na jëkkër nee na bu bu amee envie nekk góor day woo far bi moo far bi ñu am fu ñu tase nee na buñ ci nekkee ba pare mu ñibbisi mais nee na bu ñibbisee day sangu bu sangoo day jàpp julli nee na day jooy bay bëgg a dee ndax nee na lii muy def xam na ne mu ngi tooñ yàlla neexul yàlla mais nee na day ñaan chaque jour pour bàyyi ko mais nee na du ko mën a bàyyi nee na dafa bëgg a bàyyi njaaloo gi mu nekkee te paa bi takk na ko mais mënu koo bàyyi nee na paa bi mënalu ko dara paa bi day def effort yu ne paa bi mënalu ko dara nee na beneen bi ko jaaxalaat mbokk internet yi moom moo gën a nekk xale ci jabaru paa moom ñetteel la paa bi am na ñeenteel kon ça veut que yeneen ñetti jabar yi moom moo ci gën a nekk xale mais nee na li ko jaaxal ñetti jabar yi ba ci ñeenteel bi kenn ku ne yaa ngi ëmb di wasin paa bi mi lay ëmbal ngay wasin mais moom paa bi su ayee ci moom dara du dox bi ko paa bi takkee ba tey mënul jural paa doom te ñeenteel bi sax am na doom te moom mooy ñetteel yeneen jabar yi aussi ñu ngi ëmb di wasin men na moom la paa bi di ayee ci moom zéro nee na paa bi aussi gis na ne paa bi day def effort yu ne ngir bégal ko mais zéro nee na loolu nag daka xaw a jaaxal ndeysaan nee na moom loolu yéem na ko kon affaire bi du ci paa bi mais ci moom la nee na moom ndax li ko dal def-def la dañ ko liggéey wala nee na moom mënul comprendre léegi nag mbokk internet yi mu leen di laaj ndax li liggéey la wala ndax moom mënul comprendre gis ngeen sëyam boobu noonu sëyam bi mu njëkk am wax naa leen lim si daj sëyam bi mu amaat te am fa ay seex waa ji da koo takk pare woon ko ginnaaw fii nii muy ëmb di teg ak ni ko sëriñ bi toroxalee ëmbal ko mu jóge ci sëyaat yeneen ñaari sëy sëy yi échec mu ñëwaat paa bi takku ko mais paa bi ci boppam su ayee ci moom du mën a nekk dara te paa bi mi ngi am ak yeneen ñetti jabar yi doom nee na moom question boobu lay posé te ku ko mën a dimbali nga dimbali ko mbokk internet di nag ndaw si sonn na wax dëgg fa yàlla jooy na nag jooy yu méttee méttee métti nee na far bi mu am tamit lu ko metti la day bëgg saa su ne di julli di ñaan yàlla jéggal ko mu bàyyi far bi mais nee na ni muy toogee noonu paa bi du ko mënal dara buy woo far bi bay dem di nekk ak moom du ko tey nee na far bi aussi xamul ne moom dafa am jëkkër ndax ne na da koo bàyyi ci biir mais nee na daal ku bëgg a bàyyi li muy def la ndax sonn na nee na moom parfois sax danaan moom est-ce que liggéeyuñ ko yàq àddinaam ndax nag vraiment lii muy dund metti na mbokku internet di daal di koy booleeg ay jooy yu méttee méttee métti ndeysaan ndaw si sama yaram bi daw na ci li muy dund yàlla na ko yàlla jàppale yàlla mi am jàppale yàlla na ko yàlla jàppale te képp koo xamante ne nag mun nga ko defal ay ñaan ba yàlla teggal ko xat-xat yi mu nekkee teggil ko situation yi muy dund nga jàppale ko wax dëgg yàlla parce que nag am na ñoo xamante ne mun nañu teggil nit bu dee dañ koo def ay def-def yu bon ñu teggil la ko te yàlla rek tax ndax ndaw si vraiment da ngay dem ba xam ne à la fin nag lii mu expliqué bu dee nii la koy dundee ndaw si kon wax dëgg yàlla am na lu nekk ci moom luñ ko def loo xam ne mi ngi yàq àddinaam ay ca mbokk internet yi mi ngi noonu lii lañ leen indiloon ci deuxième partie ndaw si mu nekk tamit dernière partie bi lii lay sàkku mi ngi njaaloo te neexu ko paa bi di ëmbal yeneen jabaram yi mais moom paa bu ñëwee ci moom du nekku góor te moom mooy ñetteel te nee na aussi moo ci gën a nekk xale yéeme na kon nag ngeen jàppale ndaw si vraiment ñaanal ko ndax digg yàlla sonn na yàlla na ko yàlla jàppale ay ca mi ngi noonu mbokku internet yi ñu ngi leen di joxaat dig daje eh, ci yeneen i nettali di nuyu suñu DG Seylatir ñu ngi koy nuyu bu baax a baax madame Sey euh, mami mami Dia maa ngi lay nuyu bu baax a baax mais mami yow on dirait que da nga ragal Coran ah. man dama laa gëj dégg ngay wax sa baat su ma nekkaan ci studio bi parfois ma dégg la ngay wax wala des fois nga ñëw tooñ ma mais daal yow daal madame Sey daa mel ni bi ñu umee koor ba tey dafa mel ni danga ragal koor de bul tax séeréer yi summi ñu yow tamit madame Sey ay eh waay ñëwal def na nga daan def waaye léegi koor bi jeex incha allah ayca mi ngi noonu maa ngi leen bu baax a baax di nuyu Kanasatou la coréenne moo nekkoon ci caméra bi d'ici là portez-vous bien et bonne de programme sur Info ñu daal di koy terminer ak baay bye.